jërë ngeen jëf mbokk internet jàmbaar news mbokk ñu ngi am mbégte bu baax a baax contentement mbokk ñu jàkkaarloo teg yéen aaxut ber le 19 novembre incha allah rabbi ñu fas yéene si ànd ak waa jàmbaar production ñu woowaan ñu si journée bu am solo mbokk yi bis la bi nga xamante ni les crèmes de la lutte la boole bi nga xamante ni làmba da si bëgg war a wane waat boppam tax ma wax loolu ndax ñi boole si bis boobu tàpp saan boobu moo wax loolu parce que boo demee ba jàmm gën jël la phénomène tarkindaa bi yàlla mbir bi Siteu mbokk yi nga dem ba Géejawaay jël fa la dëgg de la jëtoo le penseur boolekaat bi nga xamante ne mooy Siteu ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar tàkkusaan la dis kon yaakaar naa làmb dina wan waat boppam bis boobu li ñu mel nag yaakaar naa moo waral ñu wàccal sur le terrain fa seen xool ñi nga xamante ni ñu wooyee expert ñi nga xamante ni mbokk yi saa yu ñu waxee si làmb joxe seen xalaat yow ñi ngi sitaan da ngay xam ni carrément que ni kii li mu joxe méngoon nag li nga xamante ni moom gis si mbër mi moo tax nag ñëw tey jàkkaarloo sama xarit xaadim wala nga ni usa dafa seen seq ak moom waxtaan Siteu ban sens la am si Lac de Guiers 2 waaye Lac de Guiers 2 lan mooy sens am si bile combat Sa Thiès daa daan Siteu Gouye Gui daan Siteu moom Lac de Guiers 2 mu war ñëw jaar fi ay rakkam jaar dana yombal di yomb loolu yow ñu koy dëgëral xaadim waxtaan si te di leen ko jox jërëjëf la PDG Mansour Ba jërëjëf staff Jambar production kontaan nañ si yéen Khadim maa ngi amoon mbégte bu baax a baax kontaan naa jàkkaarloo yooyu ñu fa seen waxtaan rek combat bi nga xamante ni moment bi ñu toog nii askan yi moom la ñuy xaar mu war a jox si diggante Lac de Guiers 2 ak Siteu bi sur le 19 naa la bàyyi la nga waaw sëriñ maa ngi lay siyaar baax di la jox sa wàccuwaay di di leen ñaanal jàmm ci Ngathie waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax ci am na solo yaakaar na làmba dekkiwaat na ñu bëri doon wax làmba deena mais xoolee week-end bi génne yëpp maanaam dimanche nekk rek gaydu amateen dañuy dundaat lamb dañuy dundaat mbégte lamb en tant que nitu lamb tey bo amoon tey jàngat bi nga xam da nga koy defal pour lan lay doon waaw macha allah semaine bii de ku mandul lamb jotu ko mandi société ñoo ngi jàll si diggante Ahmed Sène ak Tafatine jóge ci Modou Lo Ama Baldé tey ñoo ngi ci le 19 Siteu ak Lac de Guiers numéro te lépp ay combat événement la te lépp ay combat grand combat lañu surtout Siteu ak Lac de Guiers numéro lamb mënu ko gën a rëy waaw le 19 novembre foo sànni mat dina takk parce que ñaari grand champion lañ boole mm-hmm. ñaari jàmbar yi fa wax tëdd mm-hmm. Lac de kenn du ko présenté ci lamb mm-hmm. maa daan Yékini rek maa daan Papa Sow maa daan Yékini Junior dinañ jëm foofu. li mu def maa daan booy ñaax. vraiment lat daan ëmmal seen par avertissement. kon lat champion la. Mhm. si da tamit nekk xale boo xam te vraiment ku am gëm-gëm la. Mhm. di fal mhm. am yar am teggin di jàmbar. ay gox na di ju di ko di ko jàppale ay tableau maam jaara foora jàmm gën teli maam jaara waaw si kam mbaaw si ta sooy seen mbërum dëkk la te day fees esa rëpp la koy def wax dëgg yàlla moom euh, mbëru amateur mbëru supporter la waaye nag euh, am na waaw lan moo euh, dafa constant lah. mm -hmm. parce que même su amul combat day entraîner mm -hmm. dégg naa day entraîner leen di ba sam kon ku koy dan il faut tamit nga liggéey comme moom li muy liggéey ba pare la digg numéro 2 deux temps moo koy dan wala trois temps mais comme bëri benn benn pour dan ko dina xaw jafe waaw deux temps wala trois temps moo dan la digg mën mu mel noonu di entraîner di lundi au samedi tey pour nga roy su moom wala pour nga jëm a mel ni moom yan comportement lay am pour mën a mel ni moom mais da nga koy xool ci booy yu mu yore xoolal keroog match daanu na koy encouragé di félicité sa ko mm. keroog match dafay ndeetaa sooy mm. seet lat ko préparé xool ñaa bu ndaw mm. yow koy xool ci booy ni ñuy kon lat nan lay mel mm-hmm. moom mais xam mooy seen mag di leen préparé te booy dañuy ndeetaa kon lat dëgg numéro 2 li may wax sa jur deuxième tour entraînement la tudd waaye si te coow li mi moo neexul attan ci biir que coow li muy àndal Mm-hmm. kon mérité na ko mm-hmm. Siteu tamit ku jërë félicité la mm-hmm. parce que mu duggee si lamb bañ dañ doon wax ay du mbër tey mu ngi nii bëri la dëgër numéro 2 tey su daanee la dëgër numéro 2 mun naa bëri sax mu jaxal jël tànk dëj ko mu jaaw mu kon Siteu su daanee la dëgër dina am dam lu rëy waaye du combat bu difficile la daal du combat bu yomb mais mbër mu sain comme la dëgër 2 est-ce que tamit kooku si côté maanaam bataille psychologique jëm ko pertuis dina yomb ki nga xamante ni bëri naa ak Modou Lo mhm. bëri naa ak ay ndaanaan comme ni ñu ko waxee léegi léegi mhm. te kenn mosu ko perturbé mhm. si yooyu noonu est-ce que tamit pour surtout perturbé ko noonu est-ce que dina yomb non lak neexutul perturbé neexul jaxase parce que lak euh, ni nga gis noonu mbooloo moom ànd ak Siteu fees del ci sat bi lak day jàpp ne moom lañ faral parce que dafa am mantal dafa am bopp xam nga ko bëri amal seen bëri Papa Sow bëri Modou Lo bëri Yékini bëri Yékini genre Issa Pouye ay Tapha Tine ah, nees mm, Tapha Tine da mm. di guerre numéro deux wax dëgg yàlla on moo ko woon solo ñoom bis mënu ko jaxal mm-hmm. bis mënu ko jaxal Siteu mm-hmm. nag jàmbaar la mhm. su mënu woon daan la dëgër kenn du leen boole waaw fekkoon Siteu mënu ko daan kenn du leen boole mhm. xale la ba pare am na doole mhm. gis naa ko kër ko pare contact na te fekk na ngi doole du feeñ mais Siteu foo maigre la moom doole lay a naqaree manœuvre moom lu ko may loolu rek constant combat ñàkk combat da ciy nekk. combat mun ko bett sooy seet moom dafa nekkoon ci entraînement yi doon préparé ay xale kon combat mun ko bett ba pare moom may sens Siteu tey ñu ngi ko proposé yeneen mbër mais yàlla daxul taxawul waa jàmbaar di ci félicité Mansour mm. daf na lu rëy kenn du moom kenn du moom ku am yar ko am teggin ku baax di dimbali ñëpp Mansour mhm. parcelle waxuma la parcelle mais ñëpp lay jàppale ñëpp ndax def lu baax mhm. am yar am tegi mais nag ci papaam la ko jëlee ba kon yàlla na ko yàlla defal bis ba am ci mhm. réussite totale defal ko xéewal defal ko tawfeex ci barki Cheikhul Khadim jàngat bi lan la ñoom nappandi si biir wax waaye nappandi si ay biiri bët noo jàngatee dañeen face to face waaw dafa bëgg dafa bëgg merloo Lac quoi waaw parce que Lac tamit pour nga daan il faut nga merloo waaw il faut nga merloo ko Siteu nag ni muy def sooy seet def na ko Papa mhm. def na ko Zos Siteu ku muy bëri rube parce que ñi muy mooy gëm moom muy àndal mhm. dañ gën a ñaax mais nag loolu yàqul lamb day jaay lamb Siteu mhm. wax na parce que loo ko fay tam jar ko parce que day fësal esat da dem na boo xam mel ni ko xaw a waaw ah, parce que xam nga deret bay tàng ay négocié xam maa seetlu da ko lal waaye nag gëmma loolu nag lu yóbbal ko ci lamb jo kenn du bëri di mer non déet nag du yóbbal loolu non dañ lay lamb jo la mhm. lamb décision lamb mhm. fulla la parce que lat moom combat bi du combat parce que risque bi yëpp ci moom la féete neen ci yoon loolu la war def

champion la hmm. daanaan la Siteu tamit bëre bi mu yore mën na daan ku nekk ci lamb parce day xar jëppal Siteu day teq diggante ak Zarko diggante dafa daw du ko mu rasu ba jeex takk suuf day bëre tànk nekk de hmm. man moo commencé ko xam Moustapha ne cës tànk bi téegu ba sequ hmm. dafa jàpp si ngemal busulu mais xale bi nu mu bëree foofu mais mais fu ñu papa dafa xam Yalla ko may dafa gaw ci tank mhm. te dafa mhm. te tank bu baax la téye mais te dafa japp ci le li moy mhm. busul japp ko fi busul ko ko jël bu tel ko waaw ko busul champion la mais mu jël la de guerre 2 coow waaw ñepp site amul sensibilité combat du côté dolé du côté du côté mystique koy waaw il faut ñu jox taxuta mën parce que la jaar-jaaram rek mo tax jox fofu foofu ma ah mhm. maa sen ma Sène modlo ma Modou yikini mhm. maa bëri Yékini Junior mhm. ma bëri Yékini ma bëri Zos ma bëri Nees maa bëri Issa Pouye maa Batika ma bëri Babacar Diallo fofu lañ ko teg loolu lay favori waaw si palmarès parce que dafa wax dëgg yàlla dafa may chance Siteu Siteu nag ñoom ñaar bokk na ñaar ser muy Papa Sow muy Zos Lac dafa dan jos dan Papa saw Siteu dan Zos dan Papa saw kon Siteu euh, Lac limi def wax dëgg yalla chapeau pour la de Guiers may na ko chance mais combat bu neex la bu kenn nee Siteu mënu ko dan su ko mënu won dan kenn du la boole kenn du boleh boole te sëri ni ma ko gisee am na gëm-gëm mhm. am na fulla am na fay damay rek bis ba rek lay indi loolu surtout que na la déggee nee na man santuma sa santuma la dara yow taxawal rek mhm. man la déggee de may diriger waaw may def lépp mhm. te maa lay daan man wax dëgg yàlla si te su ma ko indi woon du ma ko bëri loo si digg yow bi dama koy lang la koy dawal lang la koy bëri loolu nit soo fekkee da ngay bëri film waaw ëpp la masse gars yi sooy bëri moom da ngay bëri moom bëri lang kër saaku yi waaw mooy lang waaw Siteu bu ñuy bëri Sa Thiès lang la bëri Siteu bu ñuy bëri Zarko lang la bëri mm-hmm. waru bëri la dëgg de si di géew bi déglu ma ko loolu bu def bu mu def loolu bu bëri loolu du baax si moom waaw non baaxul ci moom parce que wax dëgg yàlla la dafa nekk mbër moo xamante ni loo ko may mu jël ko mm-hmm. suy song day wóor mm-hmm. suy xeex day wóor suy dem day wóor waaye na jox cër Siteu na jox cër Siteu moom la Siteu léegi màgg na. Mm. Siteu soo ko gisee Baye Fall la. Mm. am na gëm-gëm. Mm. Siteu am na fayda ni muy waxee daal am na fu mu teg làmb de. am na rek moo ko joxe. sëriñ boo mënti dem tam si yàlla la ñaan. waaye li ma la rek ku nekk baay bi dimanche. sa morom. waaye bis ñoom ñaar suñu dawee dongal yi bañ toog ci plateau mun naa ne kenn moo lay daan reenu ñàmbi la reenu kenn xam fu muy demee su ko Siteu mënoon daan kenn di waaye Siteu daal li kenn gënu ko xam lamb Sénégal. la diggante nu bëri Siteu Siteu na bëri lang lang mooy ci booru saabu. waaw non mooy yoon. poids lourd bu mel ni la diggante deux di un mètre quatre dix huit mm. cent quarante kilos. Mm. mais kooku doo bëri mu ci digg parce que Siteu ma bëgg Siteu bëgguma muy bëri lak mm. léegi di ko jàpp di ko féete suuf. ma loolu de comme ñu ne Lac de Guiers numéro jàpp na Siteu ndengeñ na ko Siteu jàpp mu ko suuf su ko dëkkee palagas day moom la déggee ah parce que Siteu pour mu mboot Lac day jafe amul seen day bëri ñaar tànk mais mënu mboot Lac Modou Lo day bëri ñaar tànk mais mënu mboot Lac dafa waaw waaye nag Siteu su bëggee daan la dégg na bëri moom deux temps wala trois temps tak tak mooy daan la dégg wax naa ko Papa Sow de lu ko mooy du si génn non la dégg ben ben pour làngu dafa jëfé parce que il est coriace. il est coriace té dafa muus. Mhm. té de bëgg nga def erreur mo exploité ko dal la. Mhm. même si tam suy xex ne sax xeex bi wóorul. si mhm. ne sama koy non ben loxo rek lay xeexee. ben loxo ar ñu droit kese kese ben loxo kese parce que mais si te saa yu tamit di dóor nak su ko dogal da koy ëmb te su ko duggee da koy xaaj si te lay bañ. ké mo loolu dé bëgg loolu déedéet la tamit bu mu nangu si te diko ko suuf di japp ngeen di ko xëcc di xar jëppal wala di xëc di jàpp. mën na waaw Siteu mën na ko daan ci loolu nit mën na kenn du ko ci loolu mm. te Siteu dégg naa daa mën ci bii boor mën ci bee boor naa sax li muy bëri entraînement bëri wu arène dëgg lañ ba pare ñaari champion lañ mm-hmm. mais Maxime Bergan kenn gën koo mm-hmm. waaye bu mu nangu mukk lat ñu ne lat de guerre na ñaari njëmb Siteu lat de guerre numéro kon Siteu da nekk si penalty bari bu wa jamm nga dañuy jël sen loxo non non non parce que sa yoko jappé su ko na nga ni su ko daxé placage pour sité mbour ko lay jafé man bëgguma lool té su bari bu bari sité gëw na bari lang mom sité wa ba bari la xéx lak mais ya ngi insister ci côté lang bi ya non moy yoon lan ngay lan ngay lan ngay tay so bari ku lo fekké xam nga lamb ngay bari ku lepp da ngay bari mom ci lang parce que di gëw ba

ok dafa bi quoi dafa dafa baax dafa baax. dafa xaw moom it nay moytu si la di ko féete parce que si te mën na boobu muy xëcc xar jëppal la diggante moom tamit. ok si daan la diggante la diggante daan si te. Hmm. parce que lamb la lamb kenn xamul fu ñu demee reenu ñambi la te ku nekk mën na daan sam sam vraiment su lam boo fekkoon si te mënu ko daan kenn du lam boole. l' te gis naa daal bëri bi hmm. suñu xeexee dina métti suñu bëree dina métti kon bisu la gis na mën nañu xaar combat bu non du combat bu yomb moom wax dëgg yàlla ñoom ñaar mënuñu ñëw rek arbitre sifflé rek ñu roo foo bëri gaaw lamb ju gaaw waaw gaaw bi waaw mën naa gaaw mën naa yéex mais mm. lamb nekkul saa yi bëggee mu jeex mu jeex mm. lamb mm. nekkul saa yi bëggee mu jeex mu jeex léegi nga tëj ay coono ay 6 mois 4 mois nga ñëw lamb ji mat une minute mais so kon soo noo léeg nga daj ay coono lool ñëw làmb ji métti ci yow ñu duma la daan la nit mën nit sëriñ mm-hmm. daa koy xeet daa ko ñëw ñoom moom mm. si nekk waañ la parce que si te xale la am na de am mu nekk muy vingt-deux millions ay nitu ndox lañ de Joal Fadiouth Palmarin euh, Bikol Tataguine Djilas Ciki euh, Mbour Djolwaar non mais peut-être que yëpp vingt deux yëpp dañuy jàppale Siteu ñu jàppal ñu doon jàppale Yékini ñoo jàppale Siteu mais Lac de Guiers amuñu koy jàppale ni ma dëgg Casamance la nekk waa Pakao waa Sédhiou mm-hmm. waa Badiana mm-hmm. waa Guinée Bissau mm-hmm. waa Guinée Sékou Mali Gambie non attention combat bi kuy dem bi yabo ngoy caq si gertar parce que lamb ah, musique la ah. ah, xanaa xanaa jàpp ba set rek ànd ak suñu borom te xam ne nekk lamb bu moom la dëgër day chute le phénomène de lamsar mm-hmm. kon su le pëlsor di wàllu mm-hmm. ah ku leen day yomb yaa ngi koy nax démb noo ko ak tëgg fa yàlla bi muy ñëw nekk mbër mm-hmm. dañu waxoon du mbër tey mu dem bay bëri la dëgër kon am na mérite

bis moom nit daal tànk daanoo ko jàppale mënoo ko waaw l'adversaire de détail lañ ay champion lañ ay naan lañ waaye la diggéen numéro mooy favori parce que jaar-jaar bi tax waaye favori taxatu mooy si jaar-jaar aco ku ni làmb a waa jàmbaar par rapport ak làmb ji parce que bis li bi nga xamante ni bis bu rëy mm-hmm. moo si war a doon mm-hmm. cosaan marqué. Mhm. làmb di si bàyyi xel. Mhm. waaye làmb da koy waaw ñoom de vraiment yàgg na innové. ku mel ni Mansour xale la mais am na cër quoi. Mhm. parce que lépp da ko doonee ci papam père ba xam na lu baax te lu baax rek lay def. di wax daal lii làmb amateur na gars yi sant ba rafet. bëgg bañ ci dara parce que làmb ji am na sécurité. làmb ji moom Mansour moom jàmbar moom. saa ngi tëgg lamb lamb jëm sécurité ku fay dem ci xel ne dal mais tamit di soññat supporter yi mm-hmm. muy géejawaay muy jàmbar muy euh, jàmba gën nañu am yar am ak teggin adduna ku yarul doo yor dara ku amul teggin tamit doo teggi dara mhm. kon nañu wane yar wane teggin mhm. muy Siteu nga xam te ne mooy kilifa jàmm gën mhm. na a xale a xam ne sport la ndam la diggéen ni ma de magu Siteu la Siteu rakkam la tey ñooy tuddee ay doom ñoo dem ci ngénte yi yàlla mu yàlla musal boo xam day na am rakk boo xam day kon sport la su boolu war a tàqale nañ ci ñaan daal jàmm si bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilah incha allah dëgg yàlla soxna moom wax dëgg yàlla war na jot na jot na jot na mais gars yi ñoom yóbbu na gars yi sa booy ñoom yóbbu na sa booy ko signalé soxna moom wax dëgg yàlla waaw moom xanaa ñaan sëriñ bi yombal ñu ko rek wax dëgg yàlla moom seddaay bi ñëw seddaay bi ñu am soxna moom dégg neex na si ñoom lool mais moom xamuñ fu ñuy taxaw dañuy bërëngu rek waaw gars yi comme ju mel ni Ablaye nga xam te waa Njaafaan la moom moom keebaa moom sax ma soxna dàggal looy rek quoi ngeen di soxna looy ah, macha allah mais moom nee na ma xarit nekkul ci dara rek laa lay daj mooy daj dara na loolu métti trop jawit métti trop parce que soxna moom sëñ Tuubaa doon na ko wax mais soxna mooy wéttali àddina soxna mooy wéttali àddina sëñ na am na ku ma sa ñëw sëñ bi ne ko bugguma soxna sëñ bi ne ko kon nga gën ñëpp mu demat ne ko dama bëgg soxna sëñ bi ne ko nga yem ñëpp mu demoon ay jamono ne ko dama bëgg dama bëgg soxna sëñ bi nekkoon nga nga nga mu dem mu dem ay jamono ne day fas soxna si sëñ bi nekkoon gën a yées ñëpp pour wala soxna dafa bokk ci góor yàlla moom motul góor yàlla mm. ma gis ni nga dégg ñu ne dafa dafa gaaw énervé wala dafa tàng deret yee yéeg rek soxna moo ko waral mais yàlla nañ a sëriñ bi dégg naa amoo amoo sax copine ma doxal boo yi xam nañ dara xaw ma gel xaw a dara sëñ tubaar la xam a xas yee mi mi mi lu mu leen nekk usaani abba ay jusqu' à présent bi nga toll nga toll musoo xam jigéen waaw musoo am co copine lan la koy may. waaw xam nga man nag maa ngi juróom Medina. ñëw yoroo ya, fii parcelle. Rupo Mandel. Rupo Mandel ñu naan ko Abbas Ndao léegi. ma hmm. ñëw ter ci parcelle Inter 24 nekk ci Wanga ci Fall ci Baye Fall yi. Hmm. man nag sëriñ bi laa xam. Hmm. sa mamu jigéen yàlla na ko yàlla jërëm ndeysaan dafa dafa gaañu nag. ku baax yàlla ko suñu borom jërëm te jëkkëroo dafa mënoon wax ne ma xaadim. foo mënti nekk rek xamal ni yaay borom jubaat yi. tentation yi bëri maire yi xale yi li ma tante waaye may muñ rek. gaa yi ko yi la ñuy bëgg jël. ay demande demande yaa ngi koy am leer yi du bëgg bëgguma mu génn di fal. yu bëri. ay maire xale yi lépp mais jaay rek ànd ak suñu tubaab te xam na lépp dina baax. Moussa mën nga de. waaw xam naa ndimbali sëriñ bi la rek waaye yàlla nañ ko sëriñ bi gën a téyel defal ñu taw feex waaye bëgg naa soxna daal seddaay bi moom bëgguma mu rëcc moom. soxna su bëgg soxna su. <laughs> may ko. <laughs> Farma Dione toj Farma Dione noonu ku baax la moom it ndeysaan yaay Fall bu baax la waaw yal na ko sëriñ bi taxaw waaw di nuyu nag waa Ngàcc Fall yëpp xam nga ñoom Salif Ibou xam nga Youssou nga am suma doom la suma lépp la aussi Salif moom ba kër nañ matta sëñ la sëñ Tuubaa xamoon naa ko ko mag waaye ko gën am borom beneen am naa ci moom yaakaar ñàkk caxat sëñ Bara ngi nii borom katt gi moo ngi nii doomu imam Sow kenn gën ko xam lamb mooy lamb lamb log bu 24 soo gisul Ousa Débordé mën nga jël Ibou kenn gën ko xam ci lamb maa suñu ma ko préparé ak doomu koo jot maa ngi saar ñëpp su ma juumee si moom su baaxee yàlla borom jàmm waaw jàmm xam kii nag mooy laba ku bëgg nen hmm. dama lu mu jaay labu Fall jët waay ay nen ñu baax la ak maye maa ngi lay siyaar menuisier bu baax la waaw jëriñ si ñoo ngi ñoo ngi tubaat su baaxee moom su baaxul sëñ xarit moom su baaxee ak mi ngi ak ci barke xasida yi di nag Batiga comme moom ngay jëli nit ku baax la sama jëriñ la sama magum taalibi la ba dëgg bëggul ku ma laal nee na ku laal defal ko ñab du am ndam am ngërëmu maa ngi amaan mbégte bu baax a baax ak contentement Absa kooku sama xarit la sama lépp la yal na yàlla defal jàmm moom faya Sëriñ Absa teewul ko yaayam waaye dafa ko waa ñu ma def yëpp suba ak seen xam nga mbokk yi mi ngi noonu li la leen doon tey ak Oussa comme ni ma ko waxee léegi lu si dëng lu neex suñu matite la waaye lu si neex ndimbalu suñu borom la ndax bu ñuy toog dañu bëggoon lépp neex man ak maam Thierno Lo fii ci parcelle li leen joxaat dig daje beneen ngeen ci beneen numéro boo invité en route vers le 19 novembre site Lac de Guiers 2 ak waa Jàmbar production yaa ngi jëf